top suñu jotaay bu rattilil quran tartila ci sen site internet ahlulquran.com wala ci compte youtube ahlulquran wala ci la maison du coran sen mbokk abou taha mohammed ali ngay mo ñewat ak yéen ci seen jotaay yu rattilil quran tartila di jema a sottaxndiku ak firim fanté lenn ci qawaid at tajwid te ñu sukkandiku ci téré bu tuddu tahfatul atfal bu cheikh souleyman al jamzuri rahimahullah sunu jotaay bi ñu wees ñu nekkoon ci buntub xukmu laami al wa laamul fiil gisoon nañ laamu al borom téere bi waxoon ne ñaari atte la am bu njëkk bi moo nekkoon izhaar ko bu fekkee ni benn ci xuruuf yi ibri xajjaka wa xafa aqimahu moo ci topp ñaareelu atte bi mooy idgham ko bu fekkee ni benn ci xuruuf yi tijji baatu tib ثم صر رحما تفز ضفدا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم بعد يي تمبلي wala xaraf yi tàmbali baat yi nekk ci baytu boobu yi saa bu toppee ci al laamu al gi koy idgham ci benn ci xaraf yooyu yi geneen laam gi nga xam ni borom téere bi jàngale na ko ci téere mooy laamul fi'l laamul fi'l moy lam go xamni dafa sukun ta nek ci fi'l manam bat bim nek fi'l la du harf du ism lam go gi tamit borom ter bi waxna ci nee wa adhiranna lam fi'l mutlaqa fi naxwi qul naam wa qul naa waltaqa wa adhiranna laama fiilin mutlaqa في نحو قل نعم وقلنا والتقى لأن إظهار الفو إظهار الفو لام الفعل لام فعل قسكون القرآن فوق فك جنك بالإظهار أكحرف تمنى توب تي الحروف الهجائية جنك اللام بالإظهار وأظهرن لام فعل mutlaqa mu daal ci joxe ay misaal fi naxwi qul naam wa qulna waltaqa qul naam qul laam googu laamu ficli la qaala yaqulu qul ficlu amru la dafa sukuun naam nuun moo ci topp sa yoon nekku ci bu fi nekk naan nuun gi kat bañ ko jàngee fee ca xuruf shamsiyya la bokkoon dañ ko doon idgham déedéet ndax laam gañ doon idgaam ca nun googee ak laam gii bokkul googee laamu àlla gii laamul fi'li la te nee la foo ko fekk idhaar ko jàng ko bil idhaar kon qul naam la ñuy wax fii qul naa qul naa laam googi tamit laamul fi'l la iltaqa si beneen misaal mi joxe ci baatu waltaqa il taqa gis nga tamit foofi laam gi des koy izhaar lu tax mooy laamul fi'li la laamul fi'li nag moom moo xam fi'li gi fi'lu maadi la moo xam la moo xam amr la bum ci doon des koy izhaar kon laamu fi'lin dafa itlaaq baatu fi'l moo xam maadi la a amr comme que baat bi fi'li la nga gis ci laam gu sukuun laam go gii des koy izhaar bu ñu joxee ay misaal ci alquran ci laamu fi'l yoo xam ni ay afaal yoo xam ni afaal maadiya lañ te am laamu fi'l lu mel ni baatu alhaakumu wala faltaqa arsalna wala yu ni demee dañu gis ne am na laam ci biiram laam googu laam gu sukun la fi'li la fi'li ji maadi la idhaar moo xam mudaari la lu mel ni yaltaqituhu wala lu mel ni yatawakkal bu mu ci doon euh, idhaar ndax lan laam gi sukun na te nekk ci fi'l fi'l ji mudaari la idhaar ak xaraf wu ci mën a topp ولا موي امر لو ملني قل نعم جي مخون سانك ولا القي عصاك ولا ملني فجعل افئده فجعل افئده بوم تي دون رك اظهار كون فعل جي نخ ماضي لا ولا مضارع لا ولا امر كوكو دوتي دوتي دوتي دوتي دوتي شرط حرف وانا تي توب دوتي شرط jëmmi laam gi sukun na te nekk ci fiil xalaas xalaas attem mooy idhaar moo tax mu ne wa adhiranna laama fiilin mutlaqa fi naxwi qul naam wa qul naa waltaqa léegi nag bu fekkee ni laamu fiil ñëw na am ci ay sette laamu fi'li ñëw na laam ni moom topp ci boobaa day dugg ci buntu mislay ni nag kon dañ koy idgham comme qul lakum wala yaj'al lakum kadhalika bu fekkee ni laam ñëw na laamul fi'l raa topp ci boobaa tamit day dugg ci buntu al mutaqaaribayni comme qur rabbi waaye bu dul ñaar yooyu foo ko fekk rek idhaar léegi nag am mbir mu bàyyi xel ndax ñaari laam yooyu la borom téere bi tuddoon benn bi gis nañ ko ci sunu jotaay bi paase mooy laamu al ci ñaari atteem bi ci des mooy laamul fiil waaye nag buntub al laamaatu sawaakin gën naa yaatu loolu dañuy gis ci alquran yeneen laam yu sukuun yu bokkul ak laamu al ak laamul fi'l yooyu kon borom téere bi tudd ko waaye incha allah dañu ishaara ishaara bu gaaw lan mooy atteg laam yooyu ndax comme que jàngkat bi day dajeeg moom ci alquran war naa mën a xam laam yooyu luy seen att laam yooyu mën nañ ci lu mel ni laamul amr laamul amr laam la gu goo xam ni dafa dolleeku ci tëgginu baat ci fi'lu mudaari lay dugg foo ko fekk ci alqur'an waaw daf koy jiitu wala faa wala aw wala wala summa kon waaw wala faa wala summa laamul fiil laam lay doon goo xam ni gu sukuun lay doon te zaida lay doon ci binyatul kalima maam du dëkk asli ci baat bi te foo ko fekk ci alquran xarful waaw daf koy jiitu wala xarful faa wala thumma xeetu laam googi it mat naa xam lan mooy attem ci alquran buñ joxe misaal lu mel ne thumma lyaqdu charte yi ñëw na ci thumma lyaqdu laam googu nekk ci biir ibaar jooju ma tudd laam gu sukuun la benn ñaareel moo ci fi'lu mudaari la dugg ñaar ñetteel bi mooy du asl ci baat bi ndax boo ko daggee yaqdu baat bi day mat ñett ñeenteel bi nag mooy summa jiitu na ko te newoon na summa wala faa wala aw moo koy jiitu kon laam googu laamu fi'li la wala lu mel ni summa liyaqta summa liyaqta même laam googu nekk wala lu mel ni fal yamdud fal gis nga laam gi sukun na fi'lu mudaari' la dugg dolleeku na ci baat bi ndax du ci asla te faa jiitu na ko wala lu mel ni faltaqamahu lxuutu faltaqam wala lu mel ni e, wal yu waffuu wal yu waffuu te ñooy jàng wal yu waffuu wala wal yuufuu koy jàng wal yattawafuu wal yuufuu wal yattawafuu ñaar yëpp laxam yi du asl ci baat bi sukun na fi'lu mudaari la dugg waaw jiitu na ko laam googu yi la ñuy tuddee amr laamu al amr moom atte mooy al izhaar fekk ci alquran da nga koy izhaar moo tax baat yi ma jàng yépp da gis ne ñoo izhaar laam gi am na geneen laam goo xam ne borom téere bi tudd ko tam mata junj ñu koy wax ism laamul ism moom tamit laam gu sukkoon lay doon goo xam ni asl lay doon ci baat bi cosaan la ciy doon te ci tur yi kese lay nekk nag te it toujours foo ko fekk du cate ci digg baat lay nekk lu mel ni baatu alsinatukum ak baatu alwanukum wala baatu sultan wala baatu alfafa yëpp da gis ne ay asma lañ laam gi sukun ñëw na ci laam gi asl la ci baat bi ndax buñ ko jëlee xarafi baat bi manqué laam gi tamit catewul dafa diggu xeetu laam googu la moom tamit xukmuha al idhaaru mutlaqan fekk ci alquran jàng ko bil idhaar am na geneen xeetu laam gu ñu tudd moom tamit laam na guy sukun goo xam ne ci xaraf yi lay nekk ci alquran nag ci ñaari xaraf kese la ci ñëw mooy hal ak bal hal ak bal هل حرف لا بل حرف لا من دلو الكلمات العربية من ينتدل له هل بل لن اسم لن فعل كون حرف كسلن من دون لام جينك من نجحي مثال من هل تربصون ولا بل هم مومت توجور أتم ما إظهار لودل لودل جنا ولام جي لام نوفا ولا راء ginnaaw laamu hal ak bal xaraf wu mën a ñëw dañuy idhaar laamu hal idhaar laamu bal bam des laam ak ra ndax bu fekkee ni laam ni moom topp na ci tamaathul day ñëw day dugg ci buntub al mutamaathilayni lu mel ni hallaka wala bal lamma ba dañuy idgham laamu hal ci laamu lamma ci laamu lakk kon idgham laamu bal ci laamu lamma bu fekkee raa ci ñëw tamit boobaa taqaarub day am day nekk mutaqaaribay ni comme lu mel ni bar rafaahu llahu ak yu ne deme loolu nag bu dee ci riwaayat xafs dañ ci istithna kallaa bal raana ndax dañ dañuy sakt bu boobaa riwaayat xafs min tariq shaatibiya yaani xafs min tariq ubayd dañuy sakt ci place boobii كون داني جانغ كلا بل رانا لام بال فوب دنج كاي اظهار اندك ني رامو تي توب ندخ سكتي واي بي جانغ روات حفص جي بنين طريق ولا تي يلين روايات ييغا خامني نيوم امو ني سكت تي بلاص يوي بابا قاعده بي دي نيوات موي لام غي دنج كاي ادغام تي را كوم برانا كون دال غيناو لامو الفعل gi nga xamni borom téré bi tudd na am na yeneen ñett laamu ngoog yoo xam ni tudd ko te mu mat xam ndax rod na ci alquran ñu leeral ko muy laamu al wax nañ ni laam gu sukkoon lay doon di dugg ci fi'l maadi tey nekk zaida te foo ko fekk ci alquran waaw wala faa wala summa jiitu atte mooy izhaar tudd nañ laamu al ism laam gu lay doon goo xam ne aslu lay doon ci baat bi ci asmaa yi lay nekk te foo fekk du cate mukk ci digg baat lay nekk joxe nañ ci misal atte moy al izhar tuddu nañ tamit lamu al harf momit ci ñaari harf rek la ñëw ci al qur'an hal ak bal foo ko ci al qur'an dang koy izhar bam dess bu ci lam topé ni mom ndax di dugg ci mislay ni dañuy idgham boba wala bu ci ra topé ndax day dugg ci mutaqaaribee ni boobaay dañ koy idgham kon li moy buntu al lamatu sawakin ñaari lam la borom téré bi tuddu moy lamu al feñ na ci suñu jotay bi passé ak lamul fi'l feñ na ci suñu jotaay tay bi waye amna yenen lam ci alquran yo xamni tuddu ko tam matu junju junju nañ leen ko joxe ci misal yàlla borom subhanahu wa taala defal ñu tawfiq seen bokk lawon Abou Taha mohammed Ali ngey ci seen jotay warattilil qur'ana tartila ngeen diko suivre ci ahlulquran.com wala ci compte youtube yi ahlulquran wala la maison du coran assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا